Salam à nos abonnés en TV di amati mbégte wara and ak yéen si émission préférée muy pencum An. Tay ñu war ci and ak notre grand frère président Maodo et notre frère Ndonga Faye ñu bëgg tollu wayu footballu yaraax bëgg ko di kenn mënul dem bàyyi sa morom muy Salam président Maodo ñu la nga ak asalaamaaleykum euh, mbokk internet yi ñu ngi am mbégte tey vraiment di teew ci émission penco euh, pour waxtaanee li nga xamante ni mooy tolluwaayu footballu Hann bel ñu ci am mbégte bu baax a baax a baax di ci teew. jërëjëf président Maodo nongo aussi ñu bàyyi la nga dindi sa naataango nuyoo ak waa kër gi. asalaamaaleykum waa Yaraax asalaamaaleykum waa Hann TV maa ngi leen di nuyu.

tay bu ñoon boo ñu defal bilan global ak financier am la nga mën teg suñu loxo. par rapport ak USB euh, USB dafa nek euh, équipe bo xamanteni ni euh, benn jamono dañu tok ñu xalaat ni yaraax warna am ben équipe d'élite bu mag bo xamné et il fallait que ñu boole suñu doole ñun ñëpp pour mëna a football yu yaraax ci haut niveau bi et en ce moment il y avait l'ASC Montagne 6 yoo xamante ni mu euh, ci euh, équipe bu mën compétir pour la division régionale et Walidan, en même temps Mohamed it ci et ASC Mbaxal nekkoon ci euh, il y avait xam-xam <clears throat> je crois sous mon mu D2 Il y avait aussi olympique je crois moi, mu ngi division régionale eh, yooyu bi ñu xalaatee eh, ñu ne pourquoi pas ñu boole doole yi ci biir euh, waxtaan bi ci biir assemblée générale bi am koy wax sax ni euh, mairie bi lu ñu surtout le maire de la commune de Hann na ni équipe bu ci nekk da nga a demal mais moyens amul woon ku ci dawal da ngay euh, affaire day manque de moyens après da ngay ñëw ci mairie bi parce que bo sa moyen kiwul euh, déméwul nonu da ngay solliciter les bonnes volontés ñëw solliciter la mairie le tamit jaar fee ñëw solliciter la mairie ak les bonnes volontés ben ci ñun kenn ci ñun amuloon moyen bi nga xam mo wara yor équipe normalement euh amna ko ci assemblée générale bi euh mairie maire bi ne sawar na ci ndax dina permettre

histoire bi xamna je pense que ni explique nga leer na mais bilan bi la soxla. voilà bilan bi ci wàllu sport bi wala ci walu finance bi. wala ci wàllu bilan global bi. bi ñun bi ñu koy yore ma nek trésorier nek ci bureau bi def nañ trois années de compétition trois années de compétition oui, la mairie subventionné na les trois années mais par la suite amatul subvention bi euh biñu biñu démé demee première année def nañ résultat def résultat résultat presque tous les matchs dañ leen gagné ba ci playoff yi ci lañu les deux premières années ba pare dañ compétir avec pratiquement toutes les catégories voilà donc euh, mu nekkoon lu solo amoon doole ndongo mi bokkoon na ci ñi nga ne ñu a jege football bi ci ci ci ci ci ci waaw ci bu am solo ci encadré footballeur donc euh, tey nous avons ñu amoon ci yaakaar bu baax mais suñu demee ba ci fin pratiquement ay match dóor mu fallait fa éliminer mais ci euh, biir euh, championnat vraiment pratiquement on gagné tous les matchs mën naa ne aw ma détail les matchs fi ma mais je peux dire que à 90% de nos matchs dañ ko gagné mais si playoff off souvent fallait y voilà Tu vois le financement. Euh, pratiquement première année 5 millions de mairie subventionné deuxième année 5 millions troisième année 3 millions mais bon mon c'était pas mal c'était pas mal parce que c'est pas évident. donc millions. On millions pour les trois euh, années de compétition. Mm-hmm. Euh, avec toutes les catégories vous avez vu pratiquement si vous regardez, vous sport qui utiliser ci Nous ñu euh, le coup bi euh, gérer un championnat xam nañ et il fallait encore des moyens pour que équipe bi mais quand même c'est un voilà donc euh, globalement loolu laa ci wax après nag am na ay jafe-jafe ñu ci am yoo xam te ni pour man c'est des problèmes humains. non faut ñu taxaw ci pàcc benn pàcc bu am importance. Uh-huh. parce que soo nekkee trésorier. USB uh-huh. uh-huh. quand je parle bilan financier. tu m'as fait savoir que ni ak ñi seetaan. xamal nga leen ni am na subvention bu dugg. dafa jot dugg entre trois subventions bu nekk 13 millions. ndax trois subventions yooyu rek la moo amoon ci caisse USB comme subvention. musul am beneen ressource bu jóge feneen bu ñëw USB. bu dul treize millions. mairie bi moo doon jël subvention jox ko ci loolu la ñuy débrouiller ci la ñuy organiser les matchs. comment comment s'organiser par rapport aux dépenses par rapport en tant que trésorier. voilà les dépenses. Je am secrétariat bi secrétariat yéen ñi sport xam ngeen secrétariat bi dina am dépense am des matchs dina am dépense am euh, les primes de matchs le matériel avant le, démarrage. Les coachs sont, aussi euh, motivés avant que nous démarrions. C'est des, c'est des, charges par rapport à l'équipe. Il y a Karna, il y a, il y a sport. Voilà. Pour gagner l'eau, fait en tant que trésorier, Je le président, le président de la commission des finances, puisqu'on avait un compte, on, euh, Personne ne pouvait pas décaisser à lui seul. Donc, euh, il fallait trois signatures pour que nous puissions décaisser de l'argent. Donc, c'était pour sécuriser les fonds. C'est une organisation interne. Là fait que ni la mairie Dougal na xaalis boobu ci ci compte bi je man propose en tant que trésorier je voudrais pas de caisse je voulais du pas du moins de caisse ne may pas de caisse. puisque le compte est là qui commune bi la structure financière bu nek Présent, président président commission finance si toutefois que mu besoin de nous exprimer par rapport à l'équipe ba ñu xam ne la on se rend compte nous ñu ñu ñu dem signer génné exécuter les dépenses Non, le ko gérer. accès par rapport seen poste responsable ñoo ñoo am accès ci compte bi. bon pour décaissement bi pour les signatures il y avait il y avait il y avait trois signataires yoo xamante ne bu ñu signé wul xaalis mënul génn il y avait le président il y avait le président de la commission des finances et le trésorier voilà noonu la ñu ko organiser woon. dépense yi dañ doon génn dépense dem joxe en retour maa ngi ñëw foofu noonu parce que pàcc bu am importance bi ñu war a taxawloo mhm. président mon frère Nongo, aussi yow nga nekk ci USB pendant pas mal d'années moom wax na ko junj na ko.

vraiment euh, mu ngi woon ci première année bi parce que jouer 8 huit matchs ñu gagné ñu benn match équipe bu Pikine bi moo ñu gagné jour boobu sax suñu yéegoon dañuy suñu dóoroon dañuy dem dañuy malheureusement ñu dóor na 0 zéro kon man ci mënoo mën a wax fii fii ñu li ray football bi moy conseil yi taxawone ne mer dootu ci def xal dafa lu jitu loolu yow wax nga ko léegi nga nekk ci membre biir USB yow say le trésorier et la nekk ci bureau bi def un bilan global def un bilan financier ngeen dalul sa xel kon est-ce que da jëfandiku foofu les conseils. dalul sama xel li tax dalul sama xel mooy li tax conseils taxaw ne buñ leen defalul état bi dootuñu ko joxe xaalis loolu moo tax ma ne dalul sama xel man tamit parce que jàpp naa ne su fekkoon ne ñu ngi leen rend li leen war a rendre kon. du démé ni wala lañ leen rendre dal wa seen xel lool motax tax la ñaka dal seen xel mo ñaka dal sama xel man mais ci biir ASP man affaireu u xaalis musuma ko gérer musuma xam ni do xamna ni dal suñu zone match dinañ joxe prime 18 jours yi ñu convoqué ku ne 5000 buñu gagné ak ñaari coach yi. yow yow ban patch nga ne ko ci USB la ban wàll ci ma doon intendant USB intendant USB waaw. j'étais l'organisateur tamit. ya gi doon ya ya ngi présenter ci réunion yi. amul. benn match USB bo xamanteni ni même match amical. ndax yaa ngi présenté ci réunion yi. mais comment se fait-il que ñuy présenté ci réunion ñu xam association ñu wara war ñu né dépenses yi y' a problème. USB amul réunion. mais USB amul réunion. mooy amul so déggee man la amul réunion. Mhm. comme ni équipe bi doxee. bo jouer 3 matchs bureau bi daje ñu évaluer amul ko woon.

ñii dañuy dem bàyyi équipe bi noonu ay nit ñoo fa nekkoon di rey seen bopp football dafa laaj ay dirigeants yu baax USB fi ñu échecgee mooy ba ñuy teg bureau bi foofu la USB échecgee. dañuy composé bureau bi. dafa laaj volonté bëgg-bëgg dafa laaj pastefu dafa laaj njàmbaar tant que loolu amul même suñu joxaatoon xaalis noonu lay demee football jox ko ñu ko xam. ñi nga xam ne ci loolu ñuy dund mais ñoo xamante ne peut-être temps bi raw na leen ci football soo leen boolee jox loolu leen mën a jox tamit dañuy échec rek. loolu leen mën a jox dañuy échec mais président tey ñu am ay projet bu toll ni USB tey mu nekk lu sérieux parce que on dit que ni débloqué nañ ay somme yu toll noonu kon c'est du sérieux tey ñu toll projet bu mel noonu ay nit yor ko ay responsable yor tey gis nga fi ñu wax fi nga jaar. mais on nous fait comprendre que ni organisation baaxul daoul am réunion daawul am leneen mais comment organiser pour am résultat yu mel non mënu nek ci lolu loo ci mën yok lolu euh ba ñëw ci côté ben erreur bu xamanteni ñu koy wax présenté wu bilan financier ça c'est pas un bilan financier approximativement naka lañu ñu doon doxalee moom ngeen ma laaj doxalin l'a leen wax c'est pas un bilan financier un bilan financier c'est des chiffres des entrées et des sorties et des soldes, etc. Lolo, <laughs> <laughs> Nous ne sommes pas à l'Assemblée générale. <laughs> Tu l'as eu qui antivi. Donc, je check du présenter bilan financier. Maintenant, antivie, approximativement. Li, globalement, nous lañu donne jot ci subvention pour IOSB mën Mais comment s'organiser pour sortir l'or? Mais Comme toute une association si réunion nous donne un xëy na réunion yi dafa bëri woon ay façon il faut ngeen xam nu kuréel di doxee te yaakaar naa ne xam ngeen ko kuréel boo gis dafay am des commissions euh, yu xam ñu ngi ci commission sport bi nga xamante ne pratiquement ndongo moom la gënoon di yëngatu ñoom peut dañuy gisee chaque fois seen biir mais loolu réunion la réunion nekkul foog président mooy woote rek euh, le bureau au complet ou bien l'équipe euh, dans son ensemble ñu daje rek ñu ne loolu mooy réunion la commission sport si nous préparer cette match c'est une réunion Si nous préparons après match réunion. une réunion le président su avons une commission des finances ñu finances, nous c'est une commission des finances ak ni gérer ak a une réunion avons une réunion yëpp dama koy dina am réunion yo xamanteni tout le monde am réunion yo xam day intéresser benn patch comprendre nga donc mais il y avait des réunions sous réunion amul kon doxalin mënul am xanaa tudd ñu won suñu kër yi rek équipe bi di dem rek mairie dugal 5 millions rek après nan lay doxé non quand même y a une organisation wax naa la ci benn ci côté finance bi ni ñu organiser woon man en tant que trésorier je voulais pas que caisse di am xamna xam bu bax fi laa judo, fi laa yaroo fi laa màggee xam naa bu bax comment on fonctionne yaa ngi dégg boo la le président dañu dem ba nga presque chaque match bok, chaque match je peux dire que ni rencontre à la caisse fait que évaluer nañ seen besoin ba pareil il nous faut temps pour le match nous devons fa des caisses vous avez vu qui loolu dafa quand quand il dit que ne réunion amul. waaw est-ce que évaluation a am évaluation évaluation Je ma terminer évaluation. Mhm. évaluation ci naka par exemple assemblée générale. pas assemblée les concernés le bureau. le bureau ñu va préparer marche. la vous mhm. mais le bureau je peux dire qu'on a fait un coup coup bas au président est-ce que vous nga ni frustration bi mais mun naa anticipé le président dès les premiers jours ñi nga xam dañu ñëw jël les postes président bi dafa liggéey premier vice président il était à l'étranger en l'occurrence Boubacar dañ ko jox poste il est à l'étranger gisu le président Mbacké le vice président ñëwatul réunion on ne savait pas les raisons bindul lettre de mission réunion man wallahi lazim président ñu ci euh, mairie bi salle de conférence réunion yenn le secteur général ba président moko tu viens travailler ou bien tu rends ta démission mu rendre démission ton grand frère mom la président jëli étant membre man je suis président je suis âgé Je suis présent, président suis secrétaire di la ligue di ñëw Vous ngi dégg ku assumer ses responsabilités donc gars yi dañu ko ko jox ba pare bàyyi ko ak moom financier bi mënul woon dem fenn président ne gisee ak toujours parce que le président ne pas faire benn décaissement sans le financier man trésorier président ne dem pas bàyyi ma parce que mënul génne xaalis sans moi yaa ngi dégg mais ñeneen ñi disparaître dans la nature nous jël possible pour les Le président de débrouillé avec son âge ah, avec son âge il s'est décarcassé même le changement de nom bi olympique USB mais il mu ci mburu Non, ko frère USB li président bi la régulièrement daf def ay ay ay ay évaluation mais nit ñi su fekkee ne dañu teg bureau yow nga ñëw nekk buur di julli di def lu la neex mais nit am na fu ñu ko toll ni bàyyi laag loolu dem toog mais su fekkee ne nit musul woo nit ñi ñëwuñu mais moom moo téye équipe bi di def lu ko neex man nekk naa dix ans USB musuñu évaluer musul am. internement ñu bokk ci bureau bi. Monsieur un. mais foofu mun naa la ah, may xaar xaar bi ngay wax dama la déglu. waaw point boobu laa la doon may déglu tamit. voilà allez bi ngay wax dama la déglu. ok ok ok ok avance. ok boo foofee mosuñu ko def. loo bureau bi toog di ko def mosul am. et nit ñi kenn moomu leen ah. c'est-à-dire USB dañu rote wax naa la ko bureau bi parce que daf ci bëri woon ñoo xamante ni xamuñu lu football di doxee mais Ibou Laye ñoo gérer équipe match de poule bi. nga joué ko ba mu jeex amul évaluation ba ni ñu demee play playoff match bi ñuy gagné ñu retard ba ca amoon mais ñi fi nekkoon xam nañ ko. teewul ñu ngi continué di dépenser. sans émission mais ñu dépensé xamuñu ak li mu dépensé wul man su ma la waxee ne maa doon organiser match yi xaw ma li bi di dépensé ak li mu dépensé wul man maa doon organiser match yi. c'est-à-dire bu ñu ñëwee fii ñu su fekkee dañu bëgg a defar football bi.

ak keneen ak keneen équipe bi ñuy kon suñ toogee naan ñu équipe bi mu ngi réunion mais dañuy naxante su fekkee dañu bëgg a defar équipe bi dañuy toog ñu xam ne la ñu jëloon baaxul moom audace bu ni wóolu ñu assemblée général ki yaraax wóolu teg ko fa et ñu seeti ñi nga xam ne ñooy dund football ñu ngi ci dëkk bi mais soo leen ci boolewul téyel ko sa bopp du dem affaire bi nekkul loo xam ne nit a ko moom Mourou moomu USHB Aïssa Yarax moomu USHB dara moom Yarax lépp ñoo ko moom. pàcc boobu nañ ci yaa ngi joxe solution daañu ci ñëw Maodo dafa am loo bëggoon a yokk. waaw waaw am na loo bëgg a wax moo rectifier tuuti mon frère Ndongo. USHB boo nee dix ans USHB day mel ni USHB dix ans yëpp. parce que ah non non non non non non non non non non non non non non non

amenons nous, au conseil municipal on est en démocratie peut-être ils sont pas ils sont ils sont pas satisfaits des résultats du côté financier. en tout cas moi, de ma part personnelle étant trésorier je ne pas reproché ci la euh, gestion financière ci trois subventions subventions

secrétariat bi géré nañu ko normal affilié nañu équipe bi normal compétir nañu normal yaa dég. dégg bu trois ans yoy jeexee y avait plus de subvention Ce départ bi c'était pour que mairie di subventionner équipe bi ñu mën di compétir li lay wax yaraax lambi golo la ku jóg daanu naka la munee nekk des conseillers ou un conseiller municipal nga ñëw fekk mairie di subventionner une équipe boo xam ñun ñëpp ko moom mu que pour à la limite sax suñu domi ak suñu jarbaat yi nga dem nga ni amul résultat amul c'est ce qu'on m'a donné man comme information ken waxuma comme finance suñu ma comme finance ma indi leen ci ñu leer nañ ya ngi ndax 5 millions dafa doyul une équipe buy compétir ci toutes les catégories ci championnat wax di joxe prime di di di di di di motiver les entraîneurs jënd matériel organiser les matchs ba pare euh, euh, comment dirais-je il ci ci nous qui gérons les équipes de Navetan, nous savons que nous compétons compétir 2 millions et quelques les Navetan. là ci génnuñu suñu koñ waxtuma la une équipe qui xamante une division régionale avec euh, avec avec toutes les catégories ce n'est rien ça 5 millions ce n'est rien par rapport au moment où nous sommes surtout tu ci le sport

et pourtant ni ngeen def ni tey woo ma ñu entre frères et frères, yéen waa en TV est-ce que kenn si ñoom mus def on est ensemble qu'est-ce qui les empêchait de venir ou bien de m'appeler de montrer leur volonté leur engagement ils l'ont pas fait C'est ruq ngay tok. mel ni bokkoo yaraax mel ni bokkoo yaraax di ça xeer ba pare nag dem sax ba conseil municipal

moom il faisait partie xam na ni def nañu résultat ci côté boobu lu ñu mën ak lu ñu def nañ ko seen engagement duñ ko nier seen bëgg ak seen seen seen taxawaay ak seen coono ci affaire bi duñ ko nier mais affaire yi ay pàcc la kii dafay nekk ci volet administratif ki nekk ci ci ci volet sport bi ki nekk ci volet organisation bi ki nekk ci lee ki nekk ci lee noonu la doon mais suñuy wax day mel ni comme y a un vide alors que c'est pas ça une équipe bu compétir ba dem play off à deux reprises eh sa waay bu organisation amul bu réunion amul bu moyen amul munta am. munta am non non non Ibrahima je ne suis pas d'accord. voilà non non voilà. ñun abul kenn gënuñu crédit du dëkk bi. damay def tout historique rek. tuuti non non non Ibrahima dama ko may mu wax tamit quand même. damay def tout historique. ñun Walidaan avant USB di taxaw ñu gisee championnat amul benn équipe bu newataanu yaraax bu ko jouer idée bi nee la. kër daaraa la jóge ku ma essayé woon nañ ko une année Mbaka Seck nag moo ko valoriser moo seeti équipe yëpp mais tey bu ñu toog ñu naan équipe bii bëggoon équipe bii benn équipe kese moo fi doon compétir kon ñun football bi ku ñëw da ñu ci fekk dañu def trois ans xaalis ba jeex ñu daw ñun ñi nga xam ne mënuñu daw ñun ñi nga xam ne mënuñu daw football moo ñu ñor ñu toog fa jël suñu ñàkk di ko ci def di ko ci def ba ku ñu ci fekk fekk si ñu ci mais ban appui du maire ban ah, ban appui du maire ban appui du maire non non non non non non non non non

dépensé lan mo fi dess ñu doko a lenen xam équipe bi tay lan la fi won équipe bi lan lañ wara a équipe bi lan lañ wara a mais ñu liggéey ci projet yoy mais su fekké ni yow so paré da ngay dem tok yow match do ñu yow xamoo fi équipe bi di regroupé ñu so gis équipe bi sol mayo après nga tok nan ñi dañu ab équipe bi non nañu bu di xamanté suñu bëggee défar football bi dañ koy jox football kat ñu géré ko comme liñ ko wara a gérer

Moi, ici subvention bi nek ci keesu USB en tant que trésorier. waaw USB mësula am benen ressource bu jóge fenen fudul mairie Hann Bel-Air. Vachon yi war a fédération ñëw ala war a ci équipe. ci équipe waaw bon mo ma wat les dossiers les documents. mais bi ma wóor te le compte qu'on gérait y avait deux fois 5 millions de la mairie. Première année, 5 millions. Deuxième année, 5 millions. Troisième année, 3 millions. Ça fait 13 millions. Président, y y un un trésorier Je suis un trésorier. mais là, ça fait. 10 ans 3 ans a laa 10 ans sont mes 3 ans. y a 10 ans Il yor a fi ben document. y a benn document. mais ce que vous savez, globalement comme ni ans. waxee te mu leer ma il y a 5 millions première année. 5 millions deuxième année. 3 millions troisième année.

USB rek du sama activité USB sama ben temps bu ndaw ci sama vie lay jël may ko USB. bu ma jël nak depuis 5 waaw waaw. yaay trésorier maay trésorier maay lenen maay hmm? lenen on parle de sama njaboot waaw vous parlez de USB USB rek du sama activité. il faut la le savoir depuis 10 ans mënuma jël lepp capté ko sama tête mais su fekkoon ne tey laaj ñi wax ngeen ma indal ngeen bind ko ay question ben ben ben ben ma indal leen lepp ñew tégal leen ko.

mais fini de mon fi toog détaillé lu ci am comme erreur te yoruma ben document su la ñuy taxaw ne moo fi waxoon lii man xam naa yaraax bu baax vous avez vu les nag mon bougon mon bougon comme li saa dans le wax on est ensemble ñoo bokk suñu yaraax il faut que ñu pencoo ko ñu waxtaanee ko du ci ñàkk nak donc il est mon frère il nañ ñu daje ci ay discussions yu email ni am na gis-gis bu mu am. bu bokkul ak gis-gis bu mu am am naa gis-gis bu bokkul ak bi mu am parce que suñu problème ak ñoom la plupart lenn la mooy que ni ñoom dañuy jàpp ne doxalin bi baaxul ñiy doxal jàpp ne doxalin ba baax na mais ñooñu seen waxtaan du yomb du neex parfois fa kon mu dëgër mais li ma leer te leer leer leer man mooy ku xam football xam ni ñu compétiré beeg foofu par rapport ak li nga xam mooy montant yi

ak fu ma def sama xaliss doo ma ko laajee xamatuma ko. man personnellement limam momal sam bop bopp. may ko mu continuer. 10 ans du ñetti fan. yoru ma fi document. mais dama japp en gros wax na la. waaw may ko mu xalaatam moom tamit. pas m'obliger de dire que. Mhm. forcément. Mhm. danga ñuy wax lii quand même. deug la may ko rek. nañ leen joxante ciir boobu. non nga acca nañ dem. loolu bu sérieux mhm. trésorier général bi toog. subvention yi warul dugg xamu ko. xam naa ko subvention yi mala wax muy subvention mairie bi yi ma jàpp trois yooyu dugg ci année xamna ko non su waxe lo xam ah, amul dama koy arrêté ah, non non bu ne subvention yu mu yu mu yu mu dugg xaw ma ko ah loolu amul subvention yu dugg ko naa ko rek bay ko mum mu leeral rek 5 millions première année 5 millions deuxième année 3 millions troisième année comme niñ ko xamé eh, mu wax loolu dañuy pencho xamna ko mo moom ko xamé ben jour mom mom moom laaj na ma ah, mom na ma moom président mom mom laaj na ndax troisième année bi à la non non non non non non non non non non non non non non non non non mais non non non non non non non non non non non non pour non non pour non non non par rapport non non non non non non non non non non non non non non non non non faut non non non non échange. non non non non non non non des fois vraiment arrangé mais su paree ba jox temps de parole bu doy nga leeral. waaw ah. donc nga demal nga continuer. Mm-hmm. bureau sérieux mm-hmm. trésorier général bi toog ñu laaj ko treize millions yi mooy lig naat joxe Ibou yaa ngi yëngu ci football xam nga ni lig am na luy jóge fédération jaar fa ñëw si ñoom su fekkoon bureau bu sérieux la lépp jóge foofu du ñëw non moom moo koy dem jëli.

2010 maire dafa joxe 5 millions 2011 maire joxe 5 millions 2013 maire joxe 3 millions loolu moom Maodo amul dara loo xam ne yaa ma ko ci gën a xam 2014 kay laa la laajoon nga daw question bi. 2014 la ko laajoon xam nga ni nit day joxe ay subvention loolu leer na ñëpp moom mu nekk trésorier général nga laaj ko ko mu toog fii ci groupe sérieux mu top. no no nañ bàyyi nit ñi def bu ñu fooyee yaraax Maodo suma mag la mais bu ñu fooyee yaraax <laughs> na arrêté yii na. mooy yomb na quoi léegi la woon. faire rire quoi la moo la motivé mooy li la motivé Ibulaay Ibulaay mooy li la motivé mooy li motivé sa mag mooy li motivé woon président Ndiaga ak président Mbacke Seck ak ñeneen ak ñeneen bëri nañu mooy li motivé woon président bi muy dem ak Walidan fu jëm soo ko bëggee doo xaar moyen danga ci nekk ba lu la ciy fekk-fekk la ci loolu moo ñu moo tax ñoom ñëpp dañu dawee bàyyi équipe bi ñu ñu toog jël suñu ñaar dërëm ak suñu ñett dërëm di ko ci def di soox di soox di soox ren day mat sept ans suñuy moyen bopp

man dina wax ak grand bi dem leen ngeen joué bala année bi di jeex dem assemblée générale ma demaat ci suma gars man leen gaay yi mun man ka leen ñu dem ñu sauver année bi bala année bi di jeex dinañ organiser assemblée générale Babacar Mbengue mu may deug ñu dem grand bi xam nga. pourquoi le choix de nongo te mu nek un président nek fofu non ci la la sukkandiku pour waroon nongo ban président. sen sen bureau bi ngeen ànd diggé actuellement ni maa ko doon coordonné. yaa ko doon coordonné maa ko doon coordonné kon continué. am na sama mag yoo xamante ne. ñoom ñoo ëpp expérience jiital ma man nekk seen booy di coordonné am ci Pastef lool loolu moo taxoon ñu jiital ma loolu moo ma doon permettre may bëgganteeg maire match boobu la ñu jox trois cent mille boo xoolee sax man dama wàcc oto bi bàyyi gars yi dem parce que dama ko woo jotuma ko ma bàyyi ko message boobu ñu ngi war ji yéen. moyen commencé manqué préparation marché bi ak paas bi métti cent mille man la woo boole maag chauffeuram ma wàcc ci oto bi bi may dem fekk naa marché bi presque tas parce que dama wàcc jël xaalis bi doogu ñëwaat jël oto pour dem fekk gars yi yéen musuñu ko jël parce que foofu bëgg naa ñu leeral ko trop mm. sept ans yi fa nekk